alhamdulilahi rabbil alamin a mag ñu mag liggéey ko ba bi liggéey bi yépp job opportunities la waaye nag nuyoo bi maa ngi jox ci suñu gérant sama wàllu ndeyjoor madame Lène Diouf sama wàllu càmmoñ Ibnu Sall ñu tàccul ma leen bu baax di mu wéetoon si lool mu tolla si woon tey nag mu gis koo xam ne tollali na ko mu nekk suñu gérante Awa Thiam ñu tàccul ñu liggéey ko liggéey bu jaar yoon dina ñëwaat si ñoom waaye ñu tàccul ma leen ak nag tamit Lamine Sarr ñu tàccul ma ko bu baax a bi ko jox district yu nekk difficile du ko jox leader yu difficile ko jox san man fi nekk ñëpp projet yi daal di koy bu baax a baax ñi ñoo koy jox pek xam ne ñëw nañ fekkee si nañ si yoo xam ne ñoom seeni doom parents ci yoo xam ne lu ñuy def fàttewuñu xam ne depuis bu ñuy ba léegi ñun ñoo ngi ànd ak ñoom naaj muy daag kaw moo nekk partenaire yu ñuy woowee waa VOD di ñu VOD di bokk na ci biir FGV loona ñu parce que huit dañ ñu ne ma tiit Sala Ndiaye boo xam ne uuf na leen ëmb na leen mu jël yaatal ko tey si ñëpp kat ñu tàccul beneen bu baax. waaye nag maa ngi doon sàkku balaa programme bi di jëm ñu def benn one minute of silence mu am ñoo xam ne jóge nañ fi e ñu ñaanal leen yàlla yàlla yokk leen. une fausse édition ñu defee ko Mbour am rajo bu nekk Sénégal ñu euh, Sud FM yàlla def mu nekk mbuur FM ñëw fa ñëwin boo xam ne rafet na lool mu yore rajo Mbour FM dalal ñu foofu nga xam ne programme bu nekk def nañ ko foofu noonu advertisement bu nekk def nañ ko foofu noonu mu yaatal ñu ifine sax ticket yoo xam ne si loolu bi jaay nañ ko ñoom seen bopp liggéey nañ si tey jii su suba ñu ne wàcc na liggéey mu tudd Issa Dior sàll kon kooku dama bëgg afta ñu defal ko one minute of silence waaye yemu tamit si kooku mu am suñu force manager boo xam ne ñu mu wàcc liggéey nekk ne soxnaam tamit wàcc na liggéey moo nekk soxna Mamadou Iradian fekk ji na borom këram Iradian ñu ñaanal leen yàlla ñu jóg def benn de séance ñu toogaat ñu continuer si édition ñu jël ko dara jaal ko jigéen bu mun góor ñu koy woo sa Diol Sall mu ñëw fa yaatalal ñu rajoom ñu fay def émission di fi def advertisement dafa def lu nekk tey jii bu ñu yëgee ne wàcc na liggéey FGV delloo nañ ko njukkal ñaanal ko yàlla yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko waaye tamit Mamadou Hira Dieng bu doon liggéey ak FGV yàlla def moom tamit mu demoon barsak dem wuyu ji su wuyu ji boroomam yàlla def soxnaam tamit mu dem fekki ko ñoo koy ñaanal yàlla bu baax a baax yal na leen yàlla xaaree àjjana bu loolu weesoo tamit tay dama ne c'est une journée solennelle journée solennelle su kaw lo xam tay dafa am liguey bi lepp dañ ne is a job opportunities luñu fi taxa a yépp mo nekk opportunity moo tax ñu teew fi am xam-xam suñu xam-xam ñukay koy xamale ba ñeneen ñi mun see jot FGV am na nekk tamit su kuréel go xam da fay xeex ñak ci rew day xeex nol. di xeex baag wey ñu koy woy immigration clandestine ñu xam ne yàlla bu nekk US ak yàlla bu nekk fii benn yàlla bi la yàlla wasagam yaatu na sabablu la yàlla ñëw jox la kon boog FGV di si béy waalam nga xam ne gouvernement bi mënuñoo jox ñëpp ab xëy waaye FGV xaaruñu waaye lu leen yàlla dénk di ko jox ndaw ñi ñu xam ne ban ndaw nañ am tey ñu xam ban mag na yi am ëllëg wala ban réew na yi am ëllëg kon développement yi su ndaw ñii la nekk yan ndaw lay FGV di jël ndaw ñoo xam ne am nañ éem ndaw ñoo xam ne xam nañ lu ñuy def te xam nañ loo xam ne bëgg nañ koo def ndaw ñoo xam ne day faj ay buumu gàcce di defar ci seen famille yi waaye yematuñu ci famille waaye defar seen réew mu nekk Sénégambia mu nekk Afrique mu nekk humanité te FGV dafa am right mu wër si àddina wëngal këpp ànd ak waa SMD tey óol bi ñu ko tuddee Tété Amadou Ba ñu defal ko yàlla ñë def na ñëw na fi ba gis ci óoram tey ñu fi defee event yu toll nii waaye fekkoon ne FGV dafa jaar ci biir BGV BGV ñu nekk fa ba yàlla def ñu tàggalu ba nekk foofu assistant manager ba nekk tey manager kon boog FGV am na foo xam ne jëf génn foofu noonu ba yegg si fii tey ñoo ngi def tey benn event di leen wax ni fii ak two weeks dina amaat beneen event boo xam ne dinañ ko defee Coco Beach Hotel su Mbour waaye yàlla defaat ni tey ñu amaat mbégte gu mat sëkk ngeen xool FGF fii reenam mooy route lu mu amee muy daw du daw du jógee Sénégal ba yegg si fii kan moo ma jëloon train ma benn waay bu gàtt la woon ma nekkoon njool bu yegg su kaw su may dox du ko tiim ñu ne ma kii moo nekk sa superviseur man maa koy nekk da ko doxal waa jooju noonu train ma tey ji ma nekk distributeur nekk leader nekk assistant manager nekk manager waa jooju noonu kan moo ko jëloon yóbbu ko si fii bi kon FGV am na fum mu sokkee ko kan moo ko jëloon waa jooju ku gàtt kooku kii toog nii moo ko jëloon yóbbu ko si fii bi nekkate FGV am na reen yoo xam ne sokkee ko na fa si reen boobu tey si kan la si Pape Fall ñu koy woo Manel Fall di Diop moo ngi nii teg yàlla def tey mu nekk surprise mu nekk tamit mbégte gu mat sëkk nekk te lu am solo la ay reen yu am solo la Fra bu mu am engagement bu mu am dynamisme bu am mooy daw si biir FGV ba tey yàlla def muy liggéey si xarañteem yàlla def tey advertisement yu xew Sénégal yoo xam ne gën na fee mag poster yoo xam ne télévision yëpp moo koy moom moo koy def Tigo boo leen doon xool publicité moom moo fa taxawoon mu def advertisement yu Tigo ñu koy jël yóbbu ko fu nekk muy ànd ak suñu gérant Reda Tamara yàlla na ko yàlla yëlam moom bu muy ñëw si biir business bi Reda li jëloon nekkutoon manager ñoom ñu ànd mu nekk si timu Reda nekk fa bopp leader bu am ndak xarañ bu ànd ak engagement bu ànd ak motivation nekkete top leader bu baax dina yéegal leader la mu nekk assistant manager kii mooy yéegal reda assistant manager yàlla def mu nekk un homme de dialogue un homme boo xam ne il a beaucoup d'idées di

moy def tay publicité ba yalla def ñu indi ko airport bu Gambia tay ji mu ñëw fi tay nek si ñëpp nak parce que yàkkanti wona naa ngeen xam kan mo nek si reenu FGV fu mu sokkee ko tay ba yexi fi tay suñu système daf ñoo jangal ni c'est la vitesse du leader qui détermine la vitesse de son équipe si le leader est bon ñëpp day ànd ak moom baax di jëm si kanam kon am na siiru boo xam ne bàyyee na ko waaye si siiru boobu barke moo si nekk ba tey liggéey bi yegg si fii tey waaye dina jël kàddu après dinañ ko jox kàddu gi waaye sag la suñu ñëpp ñu xam ne tey nekk te yàlla rek a mun koo xam ne moo jël si sama leader Mamadou Lamine Kébé yóbbu ko si fiir bi formé ko nekkate moom dina ñëw ba FGV jóge foofu ba ñëw fii si Gambia moom tamit si mission yi yóbbu ko Afrique fu nekk tey ñu indi ko tey si aéroport bu ñëw fekk si waat FGV nga xam ne suñu xol metti na si benn side waaye neex na tey metti na si benn side moo nekk bis bii tey ñu war a defal graduation

moo tax ñu ne fii kat nañu boole jikko yi nañ boole xol yi mu doon benn have your good attitude and keep your good attitude. dara jëru fee rëy dara jëru fee tiitaloo waaye jaam bi lépp loo xam ne yàlla dénk na ko ko ab sant la ko war a def waaye warta nekk arme di koy xeexee warta nekk tiital boo xam ne dafa war a ne man la du si yow su mbaaxu yàlla la. jaamam lépp ab sant la yàlla dafa bind sax bañ si leen alxuraan karim bi bu mu ñëwee du ko wax baatu sant la njëkk jiital gannaaw bismillahi rahmaani rahim ëmb yëpp ma waaye baatu alxamdu bi la si teg alxamdu boobu mooy sant te jaam bi war na sant ilaa yow mi diini boromam ñu war a sant nag saa su nekk di yëgal ni programme bi bugg nañoo programme bi ñu jël ko ñu tënk ko amoon na ñoo xam ne dañoo war a def drama mais est-ce que temps bi dina si xaj am na ñoo xam ne dañoo war a def eh, poème ñu may leen tuuti rek ñu dugaat parce que ñu war a wax dañoo war a wax waaye nag ñii nag tamit dañoo war a wax si ñoom parce que ñoom ñoo tax bis bi tey am tey jii. kon donc continué ñëwaat si cadre liggéey bi ñu xam ne FGV nu ma koy dooree di leen ko wax dafa am benn mission. boo tax bu tax mu ñëw fi mission boobu ci askan bi la ko jëmale ci la ndaw ñi la ko jëmale ndaw boo xam ne amul na jom am na fulla bugg na am développement ci biir fameem waaye ci biir réew mi ñu am jàngal boo xam ne dañ la koy jël jàngal sa melokaan gannaaw ñëwaat ci biir office bi bu jógee maire boobu moom lay jël yóbbaale ko bu xam lu ñuy def bëgg tamit lu ñuy def ba nga xam ne ëllëg du ñu jël loxo yi tàllal ko di ñaanaatu tey ñoom loxo yu ñuy am ñoom ñooy féetee ci kaw saa su nekk moo nekk loxo yu dee joxe gannaaw bu ñu leen jëree ñu tàggat leen sa wàllu jikko sa wàllu nekkin sa wàllu jëflante ak sa wàllu communication ñu ne loolu noonu da koy jël mu nekk ci yow waaye du yem xam nga fexe sax naka lay amee loolu mooy taxawaayu FGV.

lan moo ko jël waral ko loolu guddee bi moo nekk day am boo demee ba nga nekk leader da ngay am benn responsabilité bu ngay commencé di yore ñu ne danga war a biir sa team danga war a waxtaan ak sa team yow boo fekkee ne teel nga wàcc da nga war a ñëw xaal leen ba ñu ñëw nga dalal leen motiver leen bàyyi leen ba ñu dem nga doog a dem ndaxte liggéey bi man foofu laa jaar. ndaxte man jànge naa fii Sénégalais high school bu Kanifing bu ma fii ñëw maa fi ñëw in 1989 ma jàngee fii ba dem university tey si doomu Gambien yoo xam ne bokkoon naa ak ñoom classmate tey mun naa see cité ñu bari am na Mamadou Dieng Diallo nekkoon na fi consul bu Gambie si eh, Mauritanie bokkoon nañ classe ba ñu dem terminal ba ñu dem terminal ñu abono bac ñu dem université bokk na si tamit ministre boo xam ne tey moo ngi fi ñu koy woowee ministre of high education ñu koy woowee Pierre Gomez tey jii moo yore high education bi yàlla def ni bokkoon naa ak moom classmate four years tey jii history bu Gambie bi moo ko jëlaat mu tëggaat ko kon boo kàngam yoo xam ne bokkoon naa ak ñoom ñoo ngi fi.

kon boog nekkate lu gën a rafet nga war a jël fësal ko mu nekk image boo xam ne dafay feeñ si yow génnee si sa xol tamit di feeñ tamit si sa sa kanam loolu mooy marketing jëflante bu rafet su ko loolu ma fay développe di développe ba ma nekk assistant manager ba na nekk manager ba nekk principal manager tijji sama first office in tout 2003 laa ñëkk a tijji FGV jógee fa di liggéey Sénégal di yaatal bànqaas yi tijji ay office Touba tijji ko mbuur ba yàlla def ngeexoox ñu tijji ko fa ba yàlla def ñuy ñëw fii 2018 tijji ko fii si Gambia suñu mission incha allah yemalewuñ ko si Gambia dañ ne FGV moo nekk force koo xam ne jógee na si réew dem si réew ma bokk ko kuréel gi ñuy woowee waa seen marketing distribution président bi nekk Tete Amadou Ba ñu tàccul ma ko bu baax. tey jii may développe di développe di développe ba tey jii may am ay principal manager am ay manager am ay assistant manager office bi tey ñu koy yaataraat.

waaye Lamine Sall dafa am koo xam ne nekk na si suufam nekk na si ab ronam di liggéey mu nekk jigéen joo xam ne macha allah gàcce ngaaraama liggéey bi ñu am jom ñu ko fi xaar rek ñoo ko fiy fekk fii neñ ne ne képp koo xam ne bugg na am opportunité na am loo xam ne na saxoo ak yow lu ñëw fekk la fi lu dem bala fi bu yàggee nga am opportunité yàlla def jigéen boobu tey nataalam moo nekk tey si biir t-shirt yi gars yi sol yëpp parce que moo waral bis bi une opportunité peut en peut en cacher une opportunité nekkete moo tax ba baayam tey jii ñu war ko graduer mu war a jógee assistant manager mu war a nekk manager dinaa si ñëw bu ñu leen jox raaya waaye dama bëggoon a jox two minutes suñu principal manager Ibnu Sall am benn kàddu goo xam ne di leen ko jox ñu jëlaat two minutes parce que time bi mooy tax parce que ñu ñuy defal graduation ñu wax seen parents yi dinañ indi témoignage tamit su ñoom te am na lu ñu leen wala yebbee tamit ba képp koo xam ne jóge na fi buy dem mu am lu mu yóbbaale ba xam ne dafay des si ñenn ñi ba xam ne ëllëg lu ñu fi toogaatee ndey ñeneen di ñëwaat ñu leen di defalaat évaluation moo nekk graduation autant pour moi suñu manager Dieynaba Diouf principal manager bu waxee bugg naa nag ñu jox kàddu gi suñu doyen suñu référence moo nekk Pape Manel Fall tamit ñu jox ko kàddu gi mu yëkkati wax bugg naa before timis programme bi jeex parce que dama ne ay seven half past euh, before half past seven euh, timis bi five after seven la kon war na fekk programme bi jeex incha allah monsieur Ibnou Sall mu nekk principal manager ñu tàggat ko depuis Sénégal mu ñëw fi ba yàlla def tey mu nekk principal manager moo nekk principal manager FGV seven Diouzbay manager principal Ibnou Sall kaddu Aliou Aliou Dabo ngeen defal ma ko grand Diouz nuyu aussi sunu gérante bi Awa Thiam ngeen defal ma di nuyu aussi sunu assistant yu ñaawul yi ngeen tàccu ma leen ba ma leen bu ku ma yàgg xam ne depuis ba may nekk distributeur office bi nekkatul ci système bi mais dama gis muy ñëw foofu nekk xaritu suñu manager léeg-léeg mu ñëw foofu après mu demaat kon ku ma depuis Sénégal nee naa commune la may xam naa temps moom tey bëggoon naa jàkkaarloog top leader yi. yoonu ndaw gaaw parce que kii mun naa yaakaar naa maa la nommé leader de maa ko nommé leader parce que beneen office de ma ay mil moom ngi FGV tout moo tax FGV tout bii ñu nekk tey souvenir la ci man parce ba ma jógee Sénégal office bi ma yoroon fii lañ ma indi woon fii lañ ma indi woon mooy FGV man maa ko yor fa la landing ak landing jara bu ñaawal bi Ah, ma fekk ma ma toog ci office bi am lu ma doon liggéey mu ne ma gérant affaire ma def na ko ba jël ay éléments yóbbu leen bi dafa leen noos bu neex jël defal leen ay kii yoo xam ne ak élément boo xam ne bokk na moom moo fi sax di di jël ay teraanga di ko defal ay kado di ko defal lu nekk moo tax business bi soo nayee doo mës a dem moo tax ku nay amul sens alhamdulilah rabil alamin comme niñ ko defee saa su rek sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang-sang yi moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi ah, di sant aussi tamit si nga xam ne mooy suñu responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk di ko tàmbalee ci suñu personne morale bi muy CEO monsieur Dabo di ko jaarale aussi te suñu maam ah, <laughs> monsieur Fall di ko euh, principal manager yi manager yi assistant manager yi distributeurs yi top leaders yi ak leaders yi bàyyiwuñu kenn yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm macha allah nag euh, duñu guddal waaye mbégte la ñu am lu tax parce que opportunité la ñu wax opportunité nag ñaari nit ñoo ko def ñaari ñooñu nag dama jàpp ne ëppalewuñ leen dara ñoo ngi nii toog li ñu am mën ngeen koo am li ñu man mën ngeen koo am mais est-ce que am ngeen jom ju ñu am est-ce que am ngeen fit bi ñu am est-ce que am ngeen fulla bi ñu am est-ce que am ngeen patience bu ñu am kenn ku ne yow loolu yaa koy tontul sa bopp kenn ku ne boo bëggee agsi fi mu agsi di nga xam ne liggéey moo ko joxee parce que fii dara mayoo fi de jëf jël ñaq jariñu yëfi Baay Faal ñoo fi nekk dangay jël nga nga fay ci nga def comme ni sa morom yi def parce que ni ñu la defal noonu lañ defal ki nga xam ne dafa nekk manager ki nga xam ne dafa nekk assistant manager waaye yow yaay xool ne man mii kat bëgg naa dem parce que ndaw comme ñu ko waxee rek jom ñaari ni am na ñaari yoo xam te ne ndaw mënu koo am mënut a bokk am jom am jot déedéet ndaw mënu koo am boo amee jom da ngay ñàkk jot boo amee jot da ngay ñàkk jom ñaar yooyu mënut a nekk ci ndaw parce que boo amee jot yow yaay ki nga xam ne comme niñ ko waxee yaa ngi dem Sunday Beach yaa ngi dem Pati yaa ngi dem pool party yaa ngi dem et cetera et cetera que da nga am jot waaye ki amul jot mooy ki am jom xam ne saa bu xëyee balaa ni ñu ko waxatee euh, jant bee jóg moom fekk na ko sa liggéeyukaayam balaa mun ko balaa yegg si guddi na nit ñi nodd nañ timis kooku talu la dox yox bi ay naxa saxandak talu ta wax naka su dul noonu takatu dem naka su noonu déedéet dafay focus ci liggéeyam ndaw nag comme ni ko suñu président Abdoulaye Wade doon waxee naan il faut travailler toujours travailler encore travailler liggéey rek moo wóor ndax liggéey loo soxla dina la ko defal waaye bu nekkee ku jóg nga jóg fuñ la séentoo yaa nga fa néew ma doo dem de waaye dina xaw a jafe kon en que ndaw nañu fas jom góorgóorlu japp te bay lool moy indi ndam lool rek laa amoon loo xam ne mën a xelal ñeneen kon boog gàcce ngaarama ma géral kàddu bu set na leer na am na et pas naa comité d'organisation bi buñ bëggee yëkkati ñëpp dina parce que dafa am luñ doon ay naan ak ay mais buñ mënoon nañ koo def rek di ko segg par benn par benn ba nga xam ne ñëpp duñ mën a jógandoo parce que tey boo bëggee jógandoo ñëpp bu yàggee ñëpp duñ ci nekk mais au moins jëloon lu mat ñeenti nit juróomi nit doy na ñeneen ñi ñu mën a toog xaar mais bugg a jóg njëkkat yi yëpp rek seen teraange gis nañ ko bëgg a bëgg yi gis ngeen ko bugg naa euh, xam nañ lu ngeen ne waaju gi ñu koy woowee Manel Fall mm-hmm. ana

Les amis, les amis Les amis, les amis Comment ça va Comment ça va Jus Bayo salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku ne si turam ak santam di di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Dabo vraiment euh, mu musuma kontaan kontaan bu toll nii waaw moom surprise la ma defal ma ñëw fii mu defal ma surprise bon li mu wax yëpp nag dëgg la xaw ma sax lu ma war a wax parce que daf ma bett waaye lu am solo mooy fii ku fi dugg sa focus yëpp dafa war a nekk ci système bi loolu mooy cëslaayu liggéey bi du cëslaayu liggéey bi rek sax dafa nekk cëslaayu doomu aadama système bi boko maîtriser sa bir bop sa bir xol fo dem ci sa aduna number one ngay don waaw comme nimu ko waxe mom manager man mako yobone sur le terrain wa yalla dogal na limu dogal ma ma genn ci système bi mais gennuma ci système bi ma ma si dama ci rester ba ndax tay ñom ñep ku si ne ma ngi am connection ak ñom tete Amadou Ba bi muy ñew si si si business bi fofu la ma fekk waaw mu tambali nek nit ku am rigueur nek nit ku am motivation comme dabo bi ñom ñaar ay exemple lañ yo xamantene ku top si ñom bo nekul manager dina ma jaaxal tarap tarap tarap tarap waaw ndaxte ñom focus lañuy def kenn di ñew nga jang sa système bu ñu ñi ñëwee buñ la buñ la waré perturber fekk yow jang nga ba pare mais jangal di jangalé nak loolu parce que bo jangé bo jangalé rek li nga jangalé res des sa bir bop comme ni mako ko man genn na système bi mais dama dem ci ben société bu nga xamante société internationale la àdduna bi yëpp ñu nga fa ñu ngi nekk ci plus de 52 pays 52 euh, mu am ñu am plus de 300 euh, shop si aéroport yi la ñoo liggéeyee France États-Unis fu et si pour donner un exemple bu ndaw rek si système de defal West Africa Gambie Sénégal Mauritanie Gabon Bénin Gambie rek pour finir, nous nekk ici mois d'octobre, octobre ken 100 Gambie 140 kon loolu su amee damay sant yàlla ak système bi ndaxte tey sama staff bi maa liggéey bokkatuma ci business bi mais man système bi laa leen di jàngal seen seen ni ñuy introduction courte histoire euh, présentation conclusion et riage donc man loolu laa leen di jàngal donc soo ñëwee si si si business bu mel nii li nga war a njëkk a dem mooy nga xam fan nga bëgg a dem parce que loolu lañ lay wax boo xamul foo bëgg a dem tey bu ma bëggee de bu ma bëggee dem Sénégal te xaw ma ne Sénégal laa bëgg a dem naka laay def ba dem Sénégal du ma xam mën naa ma jël gaal dugg ci géej gi dem ma réer mais bu ma xamee ne Sénégal laa bëgg a dem avion mun na fa dem oto mun na fa dem donc dinaa xam ma làmba sama poos xam ne ba am naa billet avion ma jënd avion. ma jënd billet avion aw ma billet avion ma jënd billet auto lool la nit bu xamé fi mu bëgg jëm da fay xam nu muy def ba dem fa waye man euh bës bi ñuy fal ñaar ñi man suma nekkon ci place bi ni every day dama dem ci ñom laaj leen naka lañ def pour yegg fi ñu yegg way wax na ko neena da ngeen wara am jalousie positive man moom laa am ba fi ma toll nii every time moom laay teg si kaw taabal ji dëkk yi nga xamante ne ñoo nekk si West Africa yëpp man ma nekk Gambie gën a gën a tuuti si Gambie waaye résultat yi ma def amul benn dëkk bu kaa def système bi la gars yi gars focus système bi gars yi fan focus fan la ñuy soog focus système bi la gars parce que système bi boo ko boo ko maîtriser waxuma sax liggéey sa digganteex nit ñi sa digganteex sa jabar sa digganteex sa yaay sa digganteex say toom sa digganteex koo dajal si mbedd soo dajee nit rek day xam ne yow feni da nga fani nit ku nice nga man fu ma dugg dañ may wax dama fani lu tax système bi lay doxee bu ngeen nelaw sax système bi laay nelawee donc ma ngi ñaanal ñepp ñu nga xamantene ñu ngi nekk fi di ñaanal ñi nga xamantene ñom lañ nomé yalla defal leen jàmm defal leen suturu teranga ba ñom ñu ngi doora tambali ndax ndaxte benen étape lañ yé étape management dafa nek lo xamantene da nga wara yërëm say say élément comme niñ ko waxee ci ndaw si say élément seeni problème sa problème la war a doon nit ku mu mënti doon si àdduna soo ko téelee problème am rek mu téel la lépp te te te business bi métti na méttiwaay bu nga xamante ne il faut que nit ki bu xëyee naan ah man de daaboo tax may dem parce que fu ma fu ma sonne su ma waxee moom mu tek ma si yoon bu nga xamantene yoon bu baax la donc manager yi encore une fois manager yi fi tok yeb il faut ngeen def focus ci seen element xol xool element xam lan lañ bugg di anticiper ci liñ bugg di leen help pour ñu mëna teggu ci si yoon bu baax euh, di ñaanal euh nit ku baax waaw dabo vraiment mom bi mu ñew si business bi man nekkuma ci business bi mais bi ma ñëwee nañ mako ma xol ko ñu waxtaan ma deglu li muy wax ma xamne ku ni ka tubaab bi wax il va aller loin day dem fu sori te yalla def nako tay def nako tay ndax te mu ngi dimbali ay nit si mom as biñ ko jox loxo biñ ko talal yëkkati ko mom mu ngi koy tàllal ay nit yu bari pour di leen yëkkati li na preuve bi parce que amna manager yu nga xamantene ne peut-être duñu nommer nit duñ la pousser pour nga dem mais limuy def ni yàlla na ko yàlla dolli sutura yàlla na ko yàlla uh, aar aar business bi képp ku nekk ci business bi uh, yàlla aar la dimbali la ba lépp lu mu fiy utsee yàlla may la ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mais man buur laa <laughs> lii tey tiital la dañ koy tiitaroo moom parce que bu ñuy nekk ci biir liggéey bi yalla def muy ñew di seet ci mo gérant Tete Amadou Ba lu mu doon waxtaan nak man bëri na lool lu mu ma doon orienté bëri na lool ba yalla def ma tijji sama first office Thiaroye Azur chaque fois daf may wax ni mba intégré nga ay nit mi ne manager munoo toog benn week tey intégré ay nit xamna bu nga koy wax yag na waaye boobu dama ko téy mu nekk leçon si man yalla def ma dem si fiefam wakam di ñew fekk kër goo xam ne yaakaar naa nettali naa ko ñu bëri ma ñëw fekk kër goo xam ne nit ñëpp nga toog maire baa ñu toog fële si kaw ma ñëw inaale sama atik, bu ma ñëwee waa kër gi sama kuti histoire li ñu wax dama ñëw rek mu dugg ma ne leen yéen aw maa yéen affaire suma chéri kooku bële laa ñëw seet chéri sa bien ma ka la isil présenté ko atik, maire bi ree ba sonn mi ne ma amna si ko xamne joge na fi lu nga am ni nak la am jeeruñu su moom mais buma ñewé ba joxé mais di wo domi ne len am ngeen fi bay bu bes mais bi jël ma détan loko mu jël ma dem sama yoon yalla def ay fan jomi mu jaar si maire bi maire bi du ko du wax ku fi ñewon distributeur bu fi ñewon melokan bi jo xam ko suma ma maire bi mamam la joo ñëw wax si ko ci bureau bi ñu teg ci weer may liggéey jaaraat fa meer bi ne ma lu nga doon ñaan yegg si na sama doom yóbbante na ma jox na ma billet dama war a dem peggu maamam boobu dem na penku ñaari weer after dew ma fa parce que man foo xam ne jaar naa fa rek sama tànk du fa dara bëriwaat nekkate maire bi dem na indil na ma sëri ca penku tànnal ma yeeg zam-zame yëpp dama xaar ba benn bis Friday ma yóbbu woon beneen observateur beneen kii kame eh, waaye élément distributeur may dem rek doom ji daa dama eh suñ papa jaa ngi suñ papa yaay sama yaay dama ngay laajte rek. jéem fa dem nga yegg ma yegg fa ay boolu midi et demi une heure moins maire bi nag da ngay teg fii sa sàkk ngeen sangu julli ji añee fii ba pare doog a dem moo wax maire bi insisté ma teg sama saak élément bi teg saagam moom su boppam maire bi si wanagam la ma wax demal foofu nga sangoo foofu keneen élément mu dem sangoo fële ma dem si biir wanagam sangoo foofu parce que. sama chéri koko la mu dalal ma dalal ma loolu ma dem julli ji ñëw nekkate maire bi préparé nooy añ boo xam ne mënuñu ko wax xam nga xam nga xam nga aña lëbu nu muy mer noonu la añ bi mer ay lëbu pire lañ nag parce que boo lekkee seen dank nga xam ne ceebu lébu laa lekk maire bi dencal ma loolu ma dem ñëw mair bi jox ma teraanga yooyu noonu ñu ne ma loo leen amee gracière nañ amee woon gracière moo nga doon jal cinq mille francs maire bi jël sa man benn jëlaat si élément bi benn muy dix mille francs nekkete yow maire bu lu mu doon toog ak ak waa Tiwaawoon bëri woon na lool nee na ma borom daara ji day toog ak moom lu bari maire bi dama nettali lu bari maire bi wàcc na liggéey bu mu wàccee liggéey nekkete yoo tànnal ma boobu ak samsam boobu daf mako ko joxal yóbbal pour man ma wala dem jëli jiko en 2015 accident bu gën metti métti màkka ma fekk ci bir màkka man may préparer zamzam ba ak du ko si ligay bi dañ na amal good attitude fo dem woné ko fa loolu ab ñaan la ab sarax la buy jëm si yow parce que da nga am ben yoon bo xamné mo nek yoonu jup ak yoon bu baax kenn bum la déviéloo sa yoon parce que xamoo yoon boobu yow sa yoon nga xam demal si sa yoon yàlla def sama teraanga lu ma am nu ngeen jëlee seen baag ma jëlee ko sama baag di dem si fit bi loolu laa amee si sama teraanga teraanga bu nekk bi foo may ñëw fii si Gambia am naa ko fi ay soxna samp samay kër Yobu sama yaay maka sama papa maka man ma dem ci maka yóbbu sama tante maka si business bi la ko am business bi pour na nga def ko il faut nga am xol bu yaat am gis-gis bu reuy muna xajal ku nek pour nga mën see jëm si kanam ligay la bo xamne jappalante la parce que deglu nañ ci waxtanu cheikh al islam rabbi taala anhu muy wax si wàllu xam-xam ak si wàllu am-am nit ki balaa ngay am am-am wutal xam-xam xam-xam plus yaa ngi koy joxe moo ngi gën di yokk am-am prisque yaa ngi koy gën a joxe moo ngi gën di wàññeeku te xam te nag am-am daf lay diisal te am-am daf lay xam-xam daf lay oyofal foo dem yóbbaale ko te as te nag fii nga koy kon boog sàkku leen xam-xam balaa ngeen am am-am. moo tax. suis fi FGV université université quête du savoir et de l'opportunité di ci xam xam-xam am xam-xam am opportunities lan moy opportunities mo nek tank bu lay jëmele ci kanam mu lay ak ñeneen ñoo la fété te bo fété kanam nit ki buy dox bu féetee sa kanam ñuy féetee si ginnaaw ñooy wax su moom parce que dañoo gis lu nekk si ginnaawam booy dem sa gannaaw yaatu ngay dox muy palang parange parce que dañ leen féetee si ginnaaw boo leen féetee si ginnaaw continuer di dox di gën a diis ñoo ñuy gën di wax parce que dañ leen a féetee si kanam ñuy féetee ginnaaw kon féetee leen si kanam saa su nekk bàyyi leen ñuy wax man Youssou Ndour boo gisee ma def ko idole dama koy wax saa su nekk.

bu mu woy mag ñoo xam ne nekkoon nañ ak ñoom ñu xam ne goos bii kat am na avenir ñuy commencé nag di ko indil ay gàllankoor parce que booy dem si yoon bu baax dina am ñoo xam ne dañ lay indil gàllankoor di la jéem a sëliñtulu di la jéem a liggéeylu di la jéem a def leneen yi sunul di dem di dem di dem ñooñu di ko indil problème mu génnee musigam dama koy wax saa su nekk te lu am solo la misikam bu mu njëkk a génnee si ñooñu ñooñu ñu koy fexeel di ko sëriñtulu pour ñu jéem ko faagaagal mu génnee misikam ne mag ñaa ngi may gëbër gëbëree sokki sox level ver jaas si man duma leen tontu duma leen fàlle mag ñaa ngi may gëbal gëbalee sokk ay sox ay revolver ak ay jaasi kon kii dañ ko bugg a faagaagal man duma leen tontu duma leen faada parce que xam na fu ma bugg a jëm te xam na naka la fay demee muy dem mi na taxawal man su ma buggee jëm si kanam mag ñooñu ñu may gëbal gëbalee il faut ma tontu leen il faut ma faale leen pour ma mën a jëm si kanam mu génnewaat beneen musique ne man Youssou Ndour man naa fonk samay noon ñu ne ko lu tax mu ne samay noon moo tax may def lu baax du wax lu baax ma jox leen eh, exemple bu ndaw aana mii tey buy ñëw ay six o'clock mënoon naa am mu nekk si kër goo xam ne yaataluñ ko heure bu dee bugg a jóg mu am ñu ne ci nu mu soofee kii temps bi rek lay jóg bugg ñu yàqal nelaw bugg ñu nangam a nangam ana su fekke ne bayiwul xel si seen wax ëllëg bu toogee dinañ dañ koy wax ne xamoon nañ ne fii lay mujjee mais ñooñu war na tax muy gën a yokk lu muy def pour ëllëg bu ñu am lu ñu wax mag ñooñu war war na tax ngay def lu baax du wax lu baax muy dem di dem di dem di dem ñuy waxaat su moom parce que nit ñi duñ la bàyyi heure boo buggee jëm si kanam duñ la bàyyi yusunul génnee lan womat àdduna bi boo defee nii ñu ne nële nga def nële ñu ne nële kon booy def defal toujours lu baax tubaab dafa ne fais tout ce que tu veux voilà le bien mais faites ce que veut la raison moo nekk xel boo ko xelee nga teg ko rek ku ko dégg dina xam ne kii kat si xel la teg kon lu ngeen di def teg leen ko si xel. muy dem di dem nag nit ñi duñ bàyyi nit mi ne kii damay croise débat bi dootuma si waxati mu génnee leen bojo bojo. bojo bojo jëriñoo tontu fees nañ fi del waaye nak yow nga teggu ci tabi no nga solo lu fëns lek lu fëns dugg ci lu di happiness lu fëns ñom ñuy nek di bojo bojo rek nak alhamdulillah nit ki da ngay am way mais way mën ta genn ci bir système bi ak ñu nek si système bi ak ñu leen jitu ci kanam ñooñu tey war nek royu way jamono bu ma doon yóbbu sama parents si eh, fële ne la dak penku 2005 la woon keroog sama gérant gëmu ko woon ma ne ko sama waajur bu góor dama koy yóbbu penku mi na ma yow yaa koy yóbbu penku ma ne ko si kàttanu yàlla yàlla def sama waajur bu jigéen fekkee wutoon bu may nekk si business bi parce que in 1993 bu may def terminal baccalauréat la yàlla def lu gën ñu jóge mission Sénégal ñëw fii ñoo ngi ko denc Dippakounda fii five years après date bi dem 2010 ma ne ko demala sama waajur bu jigéen penku five years after 2015 man ma dem penku ziyaare di Beytilaay five years after sama tante bu nekk fii ñu bari xam nañ ko dañ fay ñëw bari yaa ma yëkk di bee Màkka jox ko moom ma dem Màkka lan la si liggéey boo xam ne ñenn ñi jàpp nañ ni liggéey caaxaan la te fekk ne réeree mbir su lu ñuy def moo tax ñuy wax loolu man tey am naa ñoo xam ne ñoo ngi nekk ministre fii si réewu Gambia am na si tey ñoo xam ne ambassadeur lañ waaye ëpp ñu ma doxalin su ma leen ko ëppale ëppale wuñ ma ko. liggéey boo gis sama yaay daan na ma Aliou. ku ji sellal nga góob barkeel lépp looy def te sellaloo ko barke du fa am fii góor ñee jigéen ñi jaxasoo nañ waaye ab caaxaan nanguwuñ ko te fii kuy caaxaan du fi nekk dugalante génnante di def affaire caaxaan ab tirim lay indi tirim day tëj wërsëg buntu wërsëg te doo dem fenn te fii nag ñu sell ñoo fi nekk ñu bëgg a jëm si kanam ñoo fi nekk te lolou motax tax ji ñuy am mbégte contentement gannaaw suñu assistant yi nekk fi tay suñu gérante bi nekk fi wet nak si gérantam parce que mom tamit bu muy nekk gérante assistante mo def résultat bi mu defal ko mu nekk gérante tey ji que zalika tay non le mbir mi demee tey ñuy am mbégte contentement di nekk ak koo ne dafa am yar si këram balaa muy ñëw si FGV FGV da ngay yaru sa kër FGV dooleel la si sa yar bu ñu la yar si sa kër kenn ki ñu koy woowee Anna Gomez Anna démb jokkoo naa ak su guddi gi magam tantaam yaayam su ma ko mën a tuddee nekku fi moo ngi États-Unis US mu set ma voice ma jógee fa si fajal nijaayam keroog bu ñuy def lauréat des entrepreneurs Kayraba hôtel nijaayam ñëwoon na fa boobu ana distributrice la woon ñëwoon na fa bu ko fi fekkoon dina ñëw nee dinaa yabat di yëgal ni seede yu mu def si aana ñoom seede yu ñu def si moom seede yooyu moo fi nekk di koy wëral si biir FGV FGV tey koo si wax aana ponctualité good attitude lu mu am séddoo ko ak ay nit te xaalut kenn si dara lu ko war jalut a wax doo ko wax sax lu ko war moom xam na lu ko war si loolu lay dox tey mu liggéey liggéey boo xam ne si biir FGV tout la nekk waaye bu génnee si fir bi FGV si yëpp la bokk élément bu nekk tase na ak moom dina la orienté motiver la bu jalee mu yëkkati jox la mu jox la te buy def recrutement pour mu amaat timam ku nekk lay woo yeneen FGV yi sax def leen woo jóg leen ñu dem defi ji recrutement kon kii yàlla moo ko baaxal balaa mu yegg fii laf cat nag làmmeñ ab cat la yal nañu yàlla musal làmmeñu cat su moom la eh, yal nañu yàlla musal catu bët su moom parce que ku am avenir la keroog bu may toog ak moom ma ne ko business bi bokk nga si ñoo xam ne yaakaar nañ ne ëllëg di nga yëkkati raaye FGV su kaw te parents yi yoo xam ne jot nañoo wax ak ñoom ñooñu de gàcce ngaalaama luñ ma wax suñ moom ñun dafa fekk ñu dund ko ba pare waaye nag bu nit ki yaroo dama ne garab boo xoolee garab gi nga macc ko mu neex war nga fàttaliku jibi jibi moo nekkoon si biir suuf du jóg di jóg ba sax ba saxi et bànqaas ba saxi garab boo xam ne ñoo ngi koy jël di ko jëfandikoo ji boobu moo nekk waajur yi kon gàcce ngaaraama say waajur say waajur sant nañ la gërëm nañ la ñaanal nañ la waaye say responsable ci biir office bi nekk say waajur ci liggéeyukaay bi sant nañ la gërëm nañ la ñaanal nañ la sama yaay daan na wax ne fo djublu yalla fa yiwu yalla djublu yow fo djublu yalla fa yiilu yaaw yalla djublu yalla na la yàlla lafal cat sa famille bi yalla ci sigi ñom ñëpp ñu sigi ñu ànd yow di sigi ñu lay tiitaloo way si FGV tamit yalla nañ la tiitaloo réew mi tamit yalla nañ la tiitaloo tay ji FGV yamut fi ba Guinée Bissau FGV amna ambition yu war dem ba Guinée Bissau si ñan lay nek si yeen ñi lay nek ku si loxoom gën a set gën a am em gën koo bugg mën a jëm kooku mooy jëm si kanam liggéey bi nekkul ni looy def ñu wax la ko kon yow xamoo woon sa warugar booy xaar looy def ñu la koy wax yow xamoo sa warugar buñ la jëlee train la am na loo xam ne dañ la fay yóbbu ba teg la fa lu si des ak yaa koy mottali sa bopp say engagement say motivation yow yaa koy defal sa bopp tey am na ñoo xam ne boo leen buggee jubbanti ñu yaakaar ne da leen a soxla fii kenn soxlawu fi kenn waaye lu gën a neex fu ma yegg nga yegg fa lu ma am nga am ko tey ñu ma ko sekkaloon ñépp xam nañ ne FGV liggéeyu FGV fës na lool te si waa SMD tamit xam nañ ko tey man si biir liggéey bi ma jógee fa ma nekk premier assistant Tete Amadou Ba. tey jii lépp loo xam relation ak jënd ak jaay ak relation partenariat leadership euh, partnership man mako yoré motax samay tank nak bëriwut fi bëriwut Sénégal bëriwut extérieur yenn say ma ngi nek bitim rew du dox lu ñuy indi pour waa SMD yenn say ma ngi nek Sénégal yenn say ma ngi fi yagu dara demoon nañ fi China amoon nañ fa won mon bu ñuy ñëw idis isiwale nañ ni 6 conteneurs te six conteneurs yi fu mu nekk moo ngi waaj a jeex ba ñëw te du doon eh, gulet bu ñuy commencé di dem China 2011 2011 boobu lay commencé ñun di dem China di liggéeyal SMD tey SMD tey boo koy xool tey dem na ba si 3000 personnes. three thousand people yoo xam ne ñoo ngi liggéey si biir SDE tey Sénégal wërngal këpp région bu si nekk SMD am na fa représentant ba si Podor am nañ fa représentant Matam am nañ fa représentant Fatick Kaolack Koungheul Dakar fu nekk am nañ fa représentant loolu lan moo ko yaatal parce que ndaw ñu mel ni yéen ñoo fa nekk gëm liggéey bi gëm ne tey jii xooluñu jë waaye lu ñu am si ñoom xam-xam xam-xam boobu nay jël mottali ko pour ñoom tey ñuy jox opportunities parce que dañu la joxee opportunité comme nuñ la ko joxee yow bis boo wi nee opportunité waroo yem toog benn war nga defaraat ba ñu nekk soroon ñu war a jot opportunities noonu lay liggéey bi di yaatoo Gambia nee naa fii luñ fa war a def defaguñ ko pareeguñu ñoo ngi doog door waaye fii dina gën a yaatu ba ñu génn fii ba dem defi ji ko ñeneen waaye nag incha allah yan ñu yàlla may ñu fekkee ak tal yàlla may ñu wérgu yaram ak tamit xel mu sell buy nàcc ju ko jëmale si askan bi lépp lu ñuy yàlla di jox yàlla buñ ko tiitaroo waaye yàlla na doon ab sant saa su nekk parce que jaam bi am na ñoo xam ne beew daf leen a yomb yàlla nañu si yàlla musal tey boo demee pépés bële nga dem ko yow nga jël ko nga ñëw toog keneen bu jógee di ko dem jëli ko mënu ko jël bul ko jàpp ni dafa yaafus bul ko jàpp ni mënu ko parce que yow yaa ko mun si maaxu yàlla la la yàlla bàyyee ngay jéego sa jéego ba dem jëli ko boo ñëwaatee ba ñëw neel alhamdulilahi rabbil alamin si mbaaxu yàlla la ndaxte mënoon naa jéego benn jéego ñaari jéego yàlla tee fa sama tànk wala mu tee fa sama fan si mbaaxam la ma ko maye kon la mooy sama waruga mooy sant tey opportunité ñun ñu ko mm-hmm. système bi ñun moomu ñu ko ñëpp ñoo ko bokk ku ko yelloo da koy moom waaye kan moo ko yelloo ku nangu ku bëgg ku dem jëli ko parce que opportunité dañ ko aj nii rek boo boo toogee na yàcc na yasal doo ko jot kan mooy jot opportunité kuy def effort kan mooy jot opportunité kuy dégg waajuram di déglu waajuram parce que nee naa yéen ñi nekk élément tant que amu leen ngërëmu waajur doo leen féetee su kaw kuy yeb sa waajur tamit yàq sa développement lay doon fonk leen seen waajur yi teral leen seen waajur yi wax leen seen waajur yi wax bu neex pour ñu ñaanal leen ngeen mun a jëm si kanam bu leen ñaanalee FGV ñaanal la sa ñaan boobu day jëm si kanam mais boo respecté ko sa waajur doo dem fenn fiir bi waxuñu leen ngeen dem di seetu seeti ji Modou Paate eh, eh, wala keneen déedéet fiir bi liggéey moo leen fa yóbbu dërëm bu ngeen am lew na leen yéen a ko moom. bu leen gis junne bu waaja a am wala eh, mu leen wax ne dinaa leen jox nangam defee nangam a jox soxlawu leen ko ñaq jëluñu jëf-jëf rek moo fi nekk lépp lu ngeen am médito leen ko boo leen sellalee dërëm boobu noonu mun na jul ay millions et des millions parce que da ngeen koo sellal ngeen am si as tuut fayeku yóbbul ko seen waajur yi jëndal leen maalo jëndal leen diw jëndal leen dala ñu yokkal la ñaan yow ku texe ngay doon ji ëllëg moo tax ndaw FGV si képp kuñ siy dem ba yëkkati xaalis sa du la ko jox dañ la siy ñaanal waaye dañ lay orienté pour nga jëmale ko si say waajur amoon nañ fi e, janq boo xam ne nekkoon na fi manager mais janq boo xam ne jàngatoon xamut nan nay bindee pépa waaye bindam jàngam si FGV nañ ko ko wone ñaata moom la doon am ñoo ngi ko doon fay ñaari junne mu nekk jàng two thousand mu nekk jàng yàlla di def mu dugg FGV force eh, salaaleem bu mu xam njëkk na ko am ñaata la woon te eh, nine thousand la fi njëkk am nine thousand la njëkk a am topp si waat si am si eh, twelve thousand kooku noonu jànk boobu dem na fi ba nekk fi assistant ba nekk fi manager ba jënd laanam bay biir laanam fan la ko amee si biir FGV si la ko dama koy wax saa su nekk every month am na si parents yoo xam ne dañuy woo sama doom jëndal na ma maalo sama doom jëndal na ma di jëndal na ma nangam ma ne ko nag dafa wërsëgoo si luñ ko jël jàngal ko ko waaye tolloogut fenn di yëgal ne waajur yi bu leen teg seen doom yi pression. parce que fii xam-xam rek nañ siy sàkku leneen lu ruus ab wërsëg la boo xam ne dañu ko jël yóbbaale ko mu nekk jom waaye lu ñuy gën a sàkku rek ñu ñaanal doom yi pour ëllëg ñun fu ñu yegg ñu mën faa yegg tey liggéey bi tey lu ma si amutoon démb du doon tey laa koy am démb dama ko am ba mat sëkk doog a ñëw fii tey tey lan laay siy ñaan yàlla yokk sama jaamu yàlla si yéen si askan bi yokk si samay jaamu yàlla ngir réew mi bu doxee man ma bokk si ñu wala doxal suñu réew gouvernement bi mun ta jox ñëpp xëy waaye am na ndaw ñoo xam ne ñoo ngi toog si ne réew mi doxut parce que ñoom ñoo doxut bu réew mi bëree ab yaafus réew mi doon réew yaafus bu réew mi nekkee ab réew moo xam ne dañoo am association de lan de yambar man de liggéey ma association de yambar ki yambar ki yambar kii yambar nay am waaye liggéey nag réew mi ñun ñoo ko boobu da ngay jàpp ma jàpp kii jàpp kii jàpp kii isi réew mi jëm si kanam kon boog bu amee ñoo xam ne fighting la day dem fighting réew mi day jëm si kanam day yoon ñii kat ay lan guerrier ñoo ko yore waaye buggumaa guddal parce que time baa ngi dem waaye tey suñu mbégte ak suñu contentement moo nekk am na ñoo xam ne dañ leen a yëkkati gannaaw bu ñu waxee si lan aana tey ñu ñëw wax si Lamine Sarr Lamine Sarr tey leaderu Aana Lamine Sarr moom moo ko formé yàlla def kooku mu dem ba biir ba liggéey bi yaatu mu bàyyi ko fi tey aada des ak liggéey bi ak ñoom Lamine Sarr ànd ak seeg suñu assistante bu ne tey ji Lamine Sarr tamit lu bëri daf ko fee xaar dëgg la nag nit ki mënagut a ñor à cent pour cent mais booy ànd ak moom su noonu nga ko mën a rectifier ba mu gën a taxaw waaye am na engagement bi am na détermination bi xam na tamit lu koy xaar di ko ñaanal yàlla tamit moom yàlla na ko yàlla mottaleel tamit opportunité tey ji nag lu ñu war a dese bëriwut waaye dama bëggu dinañ jëkkati kàddu gi jox ko suñu assistante Anna Gomez waaye après dinañ am PRNC bi kenn ku wéyaloo ñëw def témoignage ci seen doom Anne Gomez. Au nom de la FGV, au nom de cette marketing distribution, au nom de son président, Tete Amodoba, au nom de mes gérants principaux, au nom du leader de mon gérant ici présent, je suis, j'engage et je suis prêt à élever au rang d'assistant gérant notre top leader Mademoiselle Anna Gomez. Assalamualaikum. My friend, my friend. How are we? Just by, just by. once again maa ngi nuyu ku turam ak santam macha allah boo ko seetloo tey moom nekk na bés boo waa xam naa ne moom man moom daf may bett waa xam naa yéen seen bopp xam ne naka la def di lan opportunité mu ñëw waa waa xam naa tamit maa ngi ñaan képp moo fi teewu tey rek macha allah ñu leen di nuyu seen tur ak seen ak seen santa waaw boo ko seelo tamit naa leen jox tamit benn lan benn song rek bi nga xam ne tamit naa ko bëgg a lan booleeg lan FG bi yëpp ñu ànd ko ah ok ñëw ana ma doon seeraay wala ñu aw bàyyi jus bàyyu macha allah kon tey moom damay dellu rek di sant yàlla ba ñetti yoon spécial di dee bi nga xam ne tamit moom laa am tey boo ko seetloo tamit ne opportunité rek moo lan moo ñu tax a jóg waa naa tamit dinaa commencé si nga xam ne tamit ñoo fi nekk tey mu nekk suñ lan ah, suñ CEO bi nga xamee tamit macha allah boo ko seetloo tey moom boo gisee ñu ñëpp ñu nekk fi tey bi ko sof lan bi ko sof him bi ko sof lan moo dafa am lan moo ko lan lan moo ko tax a jóg waaw boo ko seetloo tamit nit la ko nga xamee tamit lan la xolam dafa lan dafa yaatu moo opportunité mun na ko jëna mu jënca ko lan boppaam wala mu jox ko lan famille la mi waaw boo ko seetloo tey lan moo ko tax a jóg bu ko sof lan yur si ñoo fi lan ñoo fi teewu tey ki nga xam ne tamit ne bi dafa set kooku rek moo mun a joxe lan li nga xam ne tamit ne bëgg na lan moromam mi mu eega fa fi fekk pour famille rek la xamna ñun ñep duñ fi lan duñ fi toog tey waaye xam tamit nañ ko nag gatcha galama because of him motax tax ñu mun fi lan ñu mun fi teewu tey just by you tati ñama ko nak wa xamna ne tur bi tamit dina ko oyati na moniko suñ siyo e nga xamni tamit moniko lan Mr Aliou Dabo ñu lané lan grand jusa just by that bu fi jégué tamit dinañ demal seconde bi nak mo xamni tamit moniko suñ lan suñu yaay of the land the house xamna ne tay mom tew fi wa xamna tamit duma ko mëna a bàyyi gannaawa mu nekk lan madame dabwa Jusba wa boko ko tamit ñu demati suñu land principal manager bi nga xamé tamit mo fi nekk tamit wa boko ko mom ñu ne mo nekk lan yaay xalé ya wa xam tamit kuy bëgg rek ba dem ci mom rek macha allah ne sa bëgg mom mutna because of lan man tey bu ma ko xoolee ba bés bu nekk damay lan damay kontaan because of lan dafa am ku nga xamante ni moom laa ko dee lan moom laa ko doy xoolee kooku tey waroon na fi lan teewu tey waa tamit boo ko seetlee tamit lan ndagoy yàlla moom dafa lan dafa tukki waa ñoom ñaana boo leen gisee nag benn lañ du wax bi du kanam bi du doxin bi te du jëfin bi moo tax man bu ma koy gis rek suma xol dafay seeda mu nekk lan ki nga xam ne tamit moo nekk principal manager of lan madame lan Diouf ah. wa boko ko seela tamit ñu demal si beneen itam moo nekk foot wan bi waaw kooku moom xam naa ne moom moom da ngeen ma si ñaanal rek bu ko sof lan man kenn su ma ko dee dama koy ñaan rek may sall duñ fi génn mu nekk suma maamati maam boo xam tamit ne ah FGV de xam ne kii moom boo leen si àndee fu ngeen bëgg a eega tamit di ngeen fa laaj di ngeen fa eega bi ko sof lan kooku su lay wax opportunité la lay wax boo fa opportunité la lay lan la lay wax kon de kooku moom benn tànk moo lan moo ko tax man mun a naaw ne say assistant yi ñu ngi fi waaye man ak ñoom dañuy bokk bés bu nekk waaye damay génn daanaka yeneen say damay dem fil sama wàcce waat foofu moom duma fa demee fil te duma fa lan duma fa jaar mu nekk si nga xam ne tamit suma maam boo xamee tamit ne buñ fa demee tamit lan demoon nañ fa ànd fa ak lan assistant yi nga xam ne tamit moo nekk lan assistant Sarr waaw ànd nañ fa ak kenn nga xam ne tamit moo nekk lan oncle Modou Touré boo ko gisee moom tamit topp lii da la waaw boo ko gisee tamit liggéey bi ñu fa demoon tamit daf ñu lan daf ñu welcome yaatal ñu bàyyee ñu place bi bi ko sof lan su fekkee ne xëjuñ fa woon ñun ñëpp tey duñ fi doon lan duñ fi doon nekk waaw bi ko gisee tamit maam boobu tamit ne macha allah maa ko a am fulan courage bu nga xamee mom la ma délal mom la ma dé jox sa yu nekk bu ma fa démé machallah bu ma éw eh, ma ko moom mom kontaan bi ko sof lan moom laay njëkk gis bu bi buñ ma ko indilee mu nekk top lii wa ba né naa bu duggé man def man ak mom lay nekk damay yakamti sax mu laj mu ibé ba laj kan mo fi lan kan mo fi ja ko ma damay contant ci mom rek nga xamné tamit moo nekk suñ lan ah principal manager bi nga xamné ne tamit moo fi nekk mu nekk Mr Sala ci doyu ta yokk leen yokk leen waaye bu ñu ko xeere tamit ñu ànd ak suñu ben lan manager mu nekk lan ah manager tammi bu baax tammi bi ko nag bu ma dugg seen équipe bi tammi parce que naa ñi nga xamé tammi lan dama lay fekk tammi ci lan groupement mu nekk ki nga xamé tammi tamit moo ko gisee dama naa liggéey liggéey bi bi ko dama foog ne man suma maase rek ñoo mën a lan ñoo mën a dugal si fii bi waaw moom moom su ma ko toppoon rek macha allah tam damaa kii moom du a ah, ma gis ko ne a ma jël sama ma seet ki lu mu wax rek moom baax na fu nekk damay for nekku ne sama office rek laay em waa office bu nekk fay duga kon boo xam naa tamit moom tamit macha allah dinañ ko lan ñaanal tamit mu nekk lan manager Awa Thiam jus baay jus baay waaw bu ñu fa jógee nag ñu demal suñ lan suñ assistant yi waa assistant yi tamit boo ko seetloo tey tamit ñu ngi am benn boo xam ne tamit lan nekku fi man moom damaa tey dama xëy jooy bi ko sof lan bu ma staatee moom laa fa lan moom laa fa fekkoon mu nekkoon góor boo xam ne tamit macha allah kooku moom ayam la do xamee ne kii mom moom ak la trait waaye la mu don lan mu don ben wa ma suma sañoon tey nag waroon na nek mën a do soxla ma doon mo sa asta bi nga xam mo fi nek ta mu nekk assistant sa sax demam ak mom bu ko ko sof lan bu ma staté ak mom nekkoon nañ fa wa mu ak lan assistant am ibi lan ah, office am nekk fofu nonu wa tamit assistant bu ma leen di wax ni tamit mu nek nit ki nga xam tam dafa baax manako dafa labi manako ni nit na bo ak mom da ngay mëna xam biram kooku moom boo ko gisee da ngay lan dangay ngay kontaan because of lan boo dugasee rek macha allah man moom su may tëra sax ba may nelaw damay yaakamtee jóg bu may eesa ma ne ko mën a jóg naa si kaw lal bi because of lan encouragement bi nga xam ne tamit moom la lan moom la ma jox moo nekk tamit ki xam ne tamit nekku fi mu nekk assistant Modou Ndiaye jus bàyyi maam la waaw moom tamit boo seetlu tamit first day bi ma ñëwee FGV macha allah moom nga kaa waaye lu ma welcome nag depuis suba nak ba ngoon mom la la mom la dund ak moom ba mu ci ci mu nek la ki nga xamne mom moom mom da ko ko ko mom foo ko fekk mu ngi ree bu amé lu ko naxari ko ko nak ki nga xamne tamit mom paré na tamit pour lan pour mu jappalé bopam te paré na tamit pour jappalé ñi nga xamne tamit ñoo nek ci lan ñoo nek ci gannaawam ko ko mom machallah mom mom yar rek mu ko déssé pour mu teg ko suma lan suma ko bu ma demee si lan benn boor soo waxee rek mu né an ah, féete waa am na lan moo taxi mu lan mu jàppama si noonu waa boo ko seetlee tamit dàqul ma sista waa ki xam ne tamit dafa boole lan boppam su sa ñuy lan ñuy dem mu nekk tamit ki nga xam lan jus baay jus baay waa boo ko seetlee te xam naa ne ñi ma leen fi war na woo tey moom du jeex waa xam naa tamit léegi tey ñu lan ko ñu tëj ko waa tamit dinaa a tamit yi nga xam ne tamit macha allah moo nekk suñ lan suñ yaay si office bi moom moom duñ koy xoolee moom bu ko sof lan moom mbiram moom macha allah dafa yomba moom foo ko fekk tamit amul benn problème waa lu mu lay encourage dugal seen tamit nag nu mel la de déedéet man dama ko jàpp ne comme suma lan ma sista la bugg ma sa lu ko naxari te bugg ma tamit li nga xam ne dina ko def tamit mu lan mu naxari ko kon ba ñetti ñaari ñaari nit yi nag ma jàpp la ñu doon suma lan sumay brode ak sumay lan sumay sista ñu dëkk si office bi nii nag waaye tamit lu xew duñ ma dee bàyyi gannaaw ne ah moom bëgg nañ pour ma lan pour ma dem kon de kooku moom tamit koy ñaana ko sof lan encouragement bi nga ne tamit may na ko anytime mu maa yóbbu élément ma ne bu taxawee wax man ne ah, moom am naa lan am naa xub xam naa ne élément bu demee moom dina ñëw sof lan incurémé bi nga xamante moom lañ la jox na mu nekk assistant Ami Kolia gis bàyyi gis bàyyi ma seet foofu tamit am ta benn assistant tamit mu nekk tamit ki nga xam ne tamit demoon nañ fa tamit bi nga xamee tamit dem na si lan office am di ko sof lan boo ko seetloo tamit dañ la dee mën a génne fii nii yóbbu la beneen office tamit waaw bu seet ne tamit dañ lañ ma yóbbu beneen office xam naa ne tamit lu ma nekk suma office moo daxa tamit lu nekkat lan office ngay seet tamit lan moo la fa lan lan moo la fa tax a jóg mu nekk tamit assistant boo xam ne tamit macha allah kooku moom dafa laabi ma ne ko moom dafa deewoo ba ma ne ah ma ne man mooy assistant yi buñ meloon nii kene kii moom dina lan dina dem waa nit ki nag nekk baaxaayam tamit mun na faa nekk tamit waa am na tamit li nga xam ne tamit mun nañ ko si lan mun nañ ko si jàppee waa kii moo xam naa ku dem ak moom di nga dem bi sof lan xolam bi dafa set kon ki nga xolam bi set na rek dina mun a ak nit mu assistant tamit moo nekk lan landin jara waa boo ko tamit am na benn tamit suma yaay la waa boo ko seeloo tamit kooku tamit du ko mun gannaaw sof lan daf ma jël tamit ñi nga tamit ne lan roy waroon naa wax ne ne ah am na ñu fi lan ñu fi nekk wala office yi lan bëri nañ waaye moom tamit boo ko seetloo tamit ne ah dafa ma jël boole maa élément yi nga xam ne tamit ne every time tamit dama leen di mun a lan dama leen di mun a oo mu nekk lan mbétte boo xam ne tamit dama si lan dama si ah, lan la kii moo dafa am a jóg xanaa moom office am yi mënu nekk FGV 2 nga ne ma fa lan benn problème kan moo ko yaaxa nga xam ne tamit ñoo si nekk tamit ñoo ko lan ñoo ko yaaxa bu ko sof lan parewum pour lan pour dimbalante mu nekk ki nga xam ne tamit macha allah jël na élément ne tamit jox ma ko tamit ma ànd ak gaay tamit wan leen liggéey bu leer boo xam ne tamit ne nekkuma fa sa waat naa leen wane tamit liggéey boobu tamit moo fa nekk di dem lan ba tey waa boo ko seetloo tamit mu nekk lan assistant lan maronga justice ok boo ko tamit ne dinaa wax tamit su ma yenn assistant yi nga xam ne tamit ñu ngi des si gannaaw tamit ñooñu tamit du ma leen bàyyi nag mu nekk assistant bari kooku tamit boo ko tamit macha allah tamit lan time boobu nga xam ne tamit mu ngi nekkoon lan top leader time boobu fekk maa ngi nekk lan leader mus nañoo dem lan benn ah, programme mu ñu ooyoon meeting mu nekkoon lan ah, Boris Sanchaba waaw bu ñu eggee foofu noonu bu ñu àndee daddee ma gis kii nu mu nekk di wax ma xam ne fii moom liggéey bi moom macha allah xam naa ne moom xol bu baax rek moo la fi tax a jóg bu ko sof lan ñu ne bu xol bu bon moom amu fi lan amu fi place kon ne moo rek moo a demal bi léegi na ma greet everyone ki nga xam ne tamit from FGV 1 nag ba FGV 7 ku nekk tamit maa la si nuyu sa ak santa waaw boo ko tamit ne fàttewu ma la suma jàmbaari tamit tey tamit boo la gisee tey ma nekk fi tamit because of lan la ñoom la waaw bu nga ne si tamit nam ne nit tamit lan boo kanam tamit fekk tamit boromam dafa lan dafa nangu ma ne ko lan you can take a horse to the river but you cannot force it to land to drink wa yow mi nga xam tamit yow yaa nekk di leen di yóbbu nga xam tamit mu top leader la mu leader la sa élément fausse dé buñ ko fa yobbu da ngay yaatal sa xol bi wan ko né dafa melni ni tey ne la ñew nga ko bu am problème bu am bala muy égg ci fil bi sax daf la ko dé mëna wax bëm jéx bi ko sof lan firé ko ci lan ci mom ko né bo nga élément yi fi nekk ni yépp moom machallah jappé wu ma leen comme lan déné dé wa dama la jàppe comme suma lan suma brother ak suma lan suma sister si buñ amé problème ñun ñëpp ñokoy lan ñokoy sédo kon bo soo la amee seen élément tamit da ngeen leen di fonka tamit moo nekk ñi nga xamé tamit ñoo nekk lan groupe lan jàmbaara waaw boo ko seetloo tamit comme suma famille tamit ñu fi tamit maa ngi ñu tamit ki nga xam ne tamit moo fi teewu tamit macha allah tamit moom bëri na su ma fi war a oo seen tur yëpp ñoom fi naa waaye tamit dinaa ànd ak kenn ki nga xam ne tamit tamit boo ko seetloo tey tamit ne ku ma génn àdduna waaye moom tamit si loxoy doomam laa amoon su nekkoon ñeneen dañoo wax ne ah kii moom suñu yaay daf ko lan daf ko amee woon waaye lan la def su ma yaay neew nekku fi tey kon bàyyi ñu lan ñu génne ko waaye déedéet dañ ma jël boole ma seen lan si seen boppam kon tey moo xam naa ne moom nekkuñ tamit dinaa leen ñaanal tamit mu nekk ki nga xam ne tamit moo nekk lan anti la ki nga xam ne tamit macha allah kooku moom yaay la comme nu ma waxee moom ko dee bàyyi gannaaw waaw man tamit su papa tamit daf ma teel a lan daf ma teel a bàyyi waaw man kooku laa jàpp papa lu maa def suba ba ngoon kooku daf koy lan daf koy yëg kon ñu ne xale bu baax tamit bu ñu la yaree tamit ñu ne yar boobu tamit na ko war a lan delloo sa yaa just bàyyi la kooku nag moo nekk lan oncle Assane ak mu nekk lan Assane Badji yi nga tamit ñoom bokk tamit ak lan anti awa ki nga xam ne tamit moo nekk lan taawe kër bi kooku tamit duma ko bi ko sof lan bi suma maire bi nekkutee foofu tamit ñu nag moom ñoo fa lan ñoo fa dëkkoon tamit mënoon na fi nekk waa xam naa tamit gàllankoor rek moo ko lan moo ko si téye waa maa ñaanal tamit képp ki nga xam ne tamit fu mu nekk tamit fa lan just by that léegi tamit ok just by that waaye léegi tamit bu fa jógee tamit dina ànd ak ki nga xam ne tamit moom la fi lan moom lañ fi indi tey pour mu ñëw lan mu teewee lan programme bi kooku tamit duma ko mun a bàyyi gannaaw bi ko sof lan moom tamit am na suma pérés yi nga xam ne moom lañ génnee mu nekk oncle laay jobaate just by ok macha la wax boo ko seetlee moom su ma life moom su ma ko bëggee wax fii rek moom du jee bi ko sof lan FGV moom nekk na loo xam ne tamit ñu ne boo ñëwee tamit lan la géej la ñu ne ku ñëw dangay lan da ngay tiba di lan di naan waaw boo ko seetloo tamit ne bu ma fi doon ñëw force de man moom recrutement ma kenn joxut ma pipa waaw bi ko saf lan fu ma nekkoon di liggéey la foofu laa dem foofu noonu ma ne man de taay mu foofu noonu xëy na dafa lan dafa gaata dees yi ma fa am am na toog si kër bi rek waa liggéey kër bi tamit mun naa koo def ba pare tamit ma uti beneen liggéey boo xam ne tamit dinaa si mun a lan jàppale waaw mu am kenn ki nga xam tamit moo fa nekkoon tamit ki nga xam suma lan la suma collège la kooku ekkati pipa ah, jaaroon rek waa ñii moom dañ ma fi jox pipa rek waa pipa bi moom dama ko jëlee ma teg ko fi bu ko sof lan moom lu moo liggéey moo xam naa di ko bàyyi mu ñëw lan liggéey liggéey bii nii waa mu ne ma tamit pipa bi tamit bëgg ma ko sànni waa dafa ne kuñ bëgg ku bëgg a liggéey rek ñu jox ko ko ma ne ko isil pipa bi noo la écarté pipa bi rek mu jox ma ko ma riit pipa bi yëpp ah recrutement ma ne na daf ma jaaxal de women xaw ma women's and lan benns with ah, highest na waaw moom lan la ma si tegal mu bu ma ko joxee jënc naa ko li nga xam mut na lan one month moo nekk lan time boobu dixième la because man moom vraiment bëgg a pati waa pati moom dafa em na because of lan mun naa tëju suma néeg bi sax ma fecc fa ba ëllëg kon boobu moo tamit daf ma dee lan daf ma dee bégal kon ma ne ah pipa bi naa ko fi bàyyi waa bu Christmas bi passé man ren dinaa fa lan dinaa fa jaar kon boobu noonu laa fi lan noonu laa fi ñëwee waaw dem naa fi nag ba lan ah, januari fanaa ondi eight la xama ondi seven laa fi ñëw ma indaale pipa bi waaye bu ma fi ñëwee tamit la laa fi fekka moo nekk assistant nga ne moom laa njëkk a tasee lan si bunta bi waa ree moom moom moom daf ko jaaxal because ne ku ma xam lan ten years because of lan maa ngi wax si téléphone bi sax yow ma xam ma ban façon ngi nit nga maa laa yoon yoon yoon bi pour nga ñëw sax problème la ma ne ko ndax man Gambia moom boo waree suñ kër ak Serekunda boobu moom mun naa la faa yóbbu waaye su des moom xaw ma fi dara ah, <laughs> waaye léegi nag ñëw naa nag ba ma egsi nag ma ñëw fekkale foofu noonu nag moom ak lan assistant Ndiaye waa dat dee nag ñu ñëw boole mag ki nga xam ne tamit moo nekka lan suma yaay waa kooku moom dama koy gërëm bi ko saf lan jigéen bu baax la moo tamit lan na ma ibil na ma xolam waa boo ko gisee tamit daf ma jàpp comme lan comme système just by that temps bi jeex na ah ok waaw dama tam nu ma la bëggoon a may tuuti rek comme gars yi fii nii rek ma mun la leen a jox benn point boo xam ne tamit dina la mun a jàppal moo nekk advice bi tamit nga xam ne moom laa leen bëggoon a lan moom laa leen bëggoon a may ñu ne asal lan distributeur dafa am lan moo la lan lan moo la tax a jóg kon de moom bu leen fi ñëw pour lan pour caaxaan waaw boo ko seetee tamit ne lu leen tax a jóg tamit boo leen ko xamul tamit doo leen lan doo leen dem bi ko sof lan ku war a bàyyi sa kër suba nga ñëw fi guddi nga dem every lu mu fi yaaga yaaga yaaga tamit ne boo dee jógloo fi tamit lu baax tamit doo ko lan doo ko am bi ko sof lan opportunité ni nekkul li nga xamante dafa lan dafa easy waaw ki nga xam ne dafa fàllu si si boppam moo ko mun a am waaw man tamit boo ko seetloo tamit ñetti point laa xam ne tamit moom laa jël si lan si compagnie bi mu nekk loo xam ne tamit daf ma lan daf ma jàppale ñu ne number one assez commencé agent lan nga war a njëkk a def moo nekk lan bi sa every lan every day every time every moment da nga war lan da nga war a prépare ñu ne rek la kon bo dem nga ba nga am liggéey bi ne na nga nangu na pour nga la pour nga lan pour kon bo su ma suma kër lan laa war a prépare ne ëllëg dem liggéey waaye man ndax man li da la ndax disibito la lan moo ma tax a su fekkee ne disibito la ñu lan teaching la lan war ñu ne nga dem si fii bi def lan

ñu ne lan have nga have a good attitude already waaye ñu ne pour nga keep ko nag moo nekk lan problème bi because ku nekk fi mo dafa ne amna lan jikko bu baax ndax yow yang koy dundé dédét nak nga koy dundé xamuloo kon bo kip yo good attitude tamit dafa war lan dafa wara a nekk si amna tamit fi la ko emale rek ma délo wa sama way la depuis childhood ana li wax ne dañ ko adopt dafa mistake ko ci bayanam la nekk yaayam ak moom papaam ñoo bokk ndey ak baay ba paré mom lañ ko tuddee teg ci si moom la nekk ba fu nekk fu mu ni so comme si kéram la nekk dégg la magam yeeg pañam yeeg antem yeeg ñep ñom ñu nga Amérique so lo tax ñu dédiqué ma pour ma ma ñëw teewee ko ana liñ wax fi moy lu nekk ci mom yéen mo wax yeen yépp di nekka si aana ba pare man amatuma dara lu ma si wax lu mooy di leen jaajëfal di jaa jaajëfal famille bi because lii famille la waaye because yéen yéen a ngay jàppalante te si li ngeen nekka loolu ngeen war a nekka ndigte amul benn liggéey bu tuuti liggéey puus puus sax soo ko respecté di nga si gis sa boppa waaw liggéey puus puus li gën néew sax soo si nekkee dengan si gis sa bopp soo yéen li ngeen marketing di wër di wax nit ñi si respect di ngeen am lu nekk soo li ñu wax rek si ngeen gis ana lim commencé ya, fi ya film toll nii yéen ya it mu ngeen a aaga foofu noonu soo ñu ngi leen a jëjëfal di wax panel bi chairman CEO deputy thanks some permanent ay I don't know something like yéen ñëpp ñu ngi leen a jaajëfal ah ñu jàppalante rek ñu te la jël na yàlla may wér kàttan ak taal waaw ñi aji jiitu it yàlla jégal leen seedal suuf seen kaw waaw li tuuti liñ si am daal yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel di leen jaajëfal waay ah jërë ngeen jëf. ana yaa fi jël nangam wala ana yaa jaxase nangam. kooku yar boobu daf ko jëlee si yéen ñu leen di ñaanal yàlla fan bu ànd ak wér ak wér la ñu dem yàlla moo ko soob moo ko neex ñi ne ñi seen àpp jeex na naa leen jël yàlla na leen yàlla yërëm ñu fi nekk yàlla nañ fi yàlla bàyyi ànd ak wér ak wér la aana jërëjëfati dinañ ñëw afta teraanga yoo xam ne waa FGV jox nañu ko kenn ku si nekk ku si teg moo nekk suñu assistant tey bu ñu wala yéegal manager ñu koy woowee monsieur Lamine Sarr gérant principal monsieur Sall wax na ko bu muy nekkee ak moom raaj na ak moom ci lu bëri di aaye lu bari guddi gi jot ñoom ñuy jël di eh, dàqante ah di def lu nekk samedi bi di jot ñoom ñuy jël xalaamal liil ba jël xaraa ba xaraa muy métti lool nag waaye nag dafa am lu mu ko bëggaloon te lu mu ko bëggaloon mooy lii tey di wax ne tey kàddu bi Lamine Sarr yaa ko moom jëlee nañ la phase tri di la yéegal phase foo ñu nekk baa ñu dem si kanam dañu war a get contawa I mean, congratulations to you, CEO, Mohamed, like my ambassador of, I mean, Senegambia, let's say Senegambia. yu daa bëgg xam lan mooy si xolam moo nekk suñu kii xam ñu orienté ñu teg yoon bi euh, dina ñu orienté lu mënta mel macha allah ay attitude bi nga xam ne boo ñëwee moom nangee moom dana la liggéey nga dem si kanam di ko ñaan yàlla may wér gu yaram dem si kanam incha allah jus bàyyi comme ça ñu dawla time booy ñu principal manager madame Dabo madame Dabo madame Diouf ak suñu Zéra macha allah Mister Sala suñu suma boss bi Mr. Thiam ak suma suma former assistant managers yi macha allah ak suma top leaders yi leaders yi distribué di leen ñaan ah fu ñu àgga yàlla ngeen àgga fa bon il nga am benn des things in liggéey bi nga xam ne boo ko amee you became unstoppable mooy nga gom yàlla gom sa bopp gom li ngay def gom système gom article bi juice by juice by zero foo gom foo believe bi boo ko amee lu mu tamit da ngay am li nga bëgg am il faut nga gëm gëm li ngay def because boo xam ne li nga def ñu ne exemple man dama dee jàng am na ñu ne dama dee jàng vidéo DJ Books jël naa benn vidéo nga mu ne even bu nekkee géte caaf boo gëm ne danaa mën a teg si géte caaf da ngay da ngay jaay déet ba nga teg si gis bàyyiwu especially liggéey xam ne léegi opportunité mooy ku am soxor ku am xol ñaan doo dem il faut xol bu set li nga éene sa bopp nga éene ko sa morom fi nekk mooy opportunité li nga am sa morom war na ko am il faut li nga am da ngay jàngay they said when people are busy looking for money go and be busy looking for knowledge because if you have knowledge you will have their money just comme ça ñu dawalal time si uh, balaa maa dem balaa maay xababal because times again ma ne ñaan képp ku nekka boo génnee fii ëllëg nga takk sa digga fu ñu aaga yow boo gëmee sa bopp da nga aaga da ngay aaga ba nga romb ñu incha allah just by ma ala kuliyaat dina métti inna allah ma sabirin góor yi comme ne man danaa danaa dem si kanam incha allah gëm sa bopp everything ni nga def lay bi ñu jël suñu manager monsieur Ibnu Sall mu joxoon ñu ko certificat bi bu koy yëgal ne tey yëkkati nañ ko rang jox ko mu nekk manager moo ma ko jël dénkuma ma ko bu muy nekk distributeur yàlla mu def nag baalu lu ma ko dara si cadre eh, liggéey bi dama koy dóor ba mu yëg ni doon naa ko bugg ko rek mu baax tey jii Lamine Sall tey jii ak tey suñu eh, assistante Anna tey jii yéen a wala tey bis bi di ñaan yàlla yàlla na leen jikk bugg ñoo léegi xaabaabal dafa am benn diplôme de reconnaissance boo xam ne te mën nañ wax ne naa ko joxe jox suñu responsable Pape Mané JV jox la diplôme woon mu jël garab saxal ko du ko suuxat meññeef bi ñëw si ñun ñëpp ba kenn ku si nekk yaa ngi siy jël di si naan alhamdulilah joo FGV ñoo ngi lay wax gàcce ngaalaama di la ñaanal yàlla fan bu gudd lool ànd ak wér ak wér la tey jii liggéey bu ngay liggéey si Africa réew yépp ñu nekk si tey jii si biir Afrique département bu muy gérer moo si nekk number one tey

dégagement dans les meetings nga xam un leader qui parle conseiller c'est un leader qui parle rien que parle de vue nga xool ko rek nga un leader qui est là. Il ñii tamit ni fu ñu yegg ni nii suba yéen fa yex. yegg si lu ñu yegg si fii am na loo daf leen ko may yéen ñëpp ñu bokk la ko waaye am na loo le ne xool la di fay. te ñii seen xol la leen yàlla di fay te lii lu ndaw la ñooñu doog a door ñoo ngi leen di xaar ñu gën a xarañ ba gën a defaat ba nga xam ne ànd dina jël teraanga bu bari di koy jox nijaayam yeeg tàntam yeeg magam yi ne yéen a ma yaatal yéen a ma dooleel ba ma am dinaa jël ma delloo leen ko tey jii mënoon naa toog fu muy toog. parce que fameelam bi nii gàcce ngaaraama yàlla may na leen parce que magam bu nekk bitim réew jokkoo naa ak moom États-Unis la nekk nijaayam am na si nijaayam boo xam ne États-Unis la nekk te macha allah ku si nekk fii yaa ngi am lu ngay mënoon naa wax ni naa toog lu ma soxla eh, ñu jox ma ko waaye nit ki da ngay sa ëllëg te boo naree biil sa ëllëg doo toog di xaar ñu lay jox yaa wala wuti lu nga leen di jox. ñoom lu ñu am am am dërëm bu nga yëkkati di leen ko jox foofu nay ànd ak bul wax ne diw am na nangam ëppale na nangam nangam loolu ñàkk xel ci la bokk nit ki mun na la ëppale yëkkati nga jox ko loolu de ñaan bu mu lay ñaanal yokkute lay kon boobu di yëgal teraanga yi na ñëw ñu mën a tëj mbir mi tey jii gâteau bi ñëw na gâteau waa FGV ñëw na am na teraanga yoo xam ne ñu gaawantu parce que ñii dañoo war a dem te fu ñu war a jibi sori na ñu boo leen xas nga xam ne job opportunities la si mag bi daaboo ñu si dañoo am diaspora boobu mu nekk fii moo ngi dox mu nekk Sénégal moo ngi dox moo ngi nekk bitim réew nga xam ne liggéey rek moo ñu fa yóbbu moo ngi dox dafay fekk nit ngeen mën a tegu ci yoon ànd ak fekk manager yu ñaaw yi ñoom ñuy xëy suba di leen kon vous yéen a ngi si yoon bu leen xam-xam bañ a ñu nekk si biti parce que am na ñoo xam ne biti nañ nekk jaar nañ FGV amuñu si ab ndam nee naa leen fii si bi FGV University. la nekk ku nekk moo fay am am na ñoo xam ne lañ jànn bi yeggut ñu leen FGV tamit noonu la mel ku fi toog dëgër bëgg topp système bi nga gëm système bi comme na ko suñu responsable bi waxee focus ci système bi système bi mooy lépp ku jàpp système bi système bi moo lay won yoon bi te système bi nag lu fiir la loo ko jël boole ko ak moom mu bàyyi la ak loolu nañu xëy si waat suba teel beesaat takk si xel yi sa takk si xol yi ñu xam ne tey am na si yeneen office yoo xam ne tey maa ngi koy wax lu ko dalee FGV wan maa ngi fay moo fay gis opportunité moom fay xeeñ lu ko dalee FGV foo maa ngi fa gis ay opportunité ñoom fay xeeñ lu ko dalee fii tamit FGV tout tamit am na yeneen opportunité yoo xam ne ñoom ngi ñoo ngi fiy xeeñ te bugg nañ incha allah fii ak one month wala two months opportunité yooyu daanuwaat te du waajal encore before next year ñu war a tijjiwaat beneen office fii si Gambia. loolu tamit yàggutul dara dinañ ko am bu ñu fi jógee two weeks am nañ beneen graduation bu ñu war a def ci Coco Beach Hotel su Mbuur waaye FGV tamit nu mu liggéeyee fii mu nekk patrimoine FGV liggéey ko ba liggéey bi yànj noonu nañ ko defee ñu defee ko banque yi Sénégal waaye tamit tey dañoo war a beneen office bu bees Sénégal boobu tamit ku fa ñëw xam ni c'est un patrimoine bâti de la FGV moomeelu FGV la liggéey ko ñu war ko tijji office si fii Tunis dinañ tijji FGV Malikounda incha allah. te noonu nañ ko bugg a jàppee di ko jàppee di ko jàppee Bissau war nañ faa am office Conakry war nañ faa am ay office Mali war nañ faa am office te yéen a fay toog yéen fay toog yi ëllëg te xam naa ni. matale bi rek moo des waaye xam-xam bi bëgg-bëgg bi xol bi moo ngi fii te FGV nekkuñu ay cuune nee naa buñ ko naree pàcco ba ko te bokkuñu si ñooñu dañuy nuroo ñooñu te ëpp nañu ñooñu kon boo xam seen bopp sa bopp rek def jàpp leen lu ngeen di tey jii ñoo ngi sariyewaat le président sa yoon nekk fii jete Amadou Ba mais heureusement

première édition bi ñoo ko defee su ko ko biir hôtel hôtel yu mag ñu indi leen fa def foofu encore soirée boo xam ne Issa Dior Sall bu ñuy jëm ñu tàggee ko tey tey moo fa ñëwoon tey taxaw fa taxaw bu rafet kaddu yu rafet discours yu rafet photo yi tasaare naa ko si FGV News tey ji ku ñëw tey suñu page FGV Gambia tey ji waa VOD di ko gérer tey ñoom gàcce ngaaraama man dama ne VOD partenaire FGV la ba géej gi di fer tey ñoom tamit tey damay wax rek leen a fay waaye dañ leen di ñaanal lu FGV jóg lu mu xat-xat lu mu métti métti ñu bàyyi seen lépp tey kii ku ko gis tey nga xam ne dafa yole ay choc yole ay lan bi sansam yole tamit euh, liggéey boo xam ne ku ko moom sos ko nekkul fii UK la nekk jël tijjil ko jox ko léegi ñu ne ko doxalal tay dit si gambia ay information télévision yu bari tay mo nga fa taxaw tay def des gars, tay mu ñew fi tay jaar FGV jaar bis kon bok ñong ñaanal yalla bu baax. ñu ñoo wax lepp des waye day ñaan des ñu bu mag bo télévision. Sénégal la télévision yu Gambia nous avons vu waa VOD FGV parce que dañ ko des entrepreneurs fils, fini, dans donc c'est eh, opérateur économique beaucoup si waa nous te opérateur économique nous avons le corridor quel

ñu dee yàq réew mi ñu dee wax lu bon si réew mi bokk si biir FGV fii seen yar moom nañ leen di jël ñu jàppal leen si nàmpatal leen si ngeen yóbbaale ko si fii bi xam leen ñu ngeen doon bëgg leen lu ngeen lu ngeen daal yor pour ëllëg nit ñi ñëw nawloo leen leen ña ngi leen eh, salgalaat nuyu leen tatagal leen ñaan yàlla du yàgg dala ñu defaat fi beneen évin asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu people, uh, everything people will need to have people is going to buy. So this will make this